أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصل اللهم وسلم على النبي الهاشمي sallallahu alayhi wa sallam alladi daxa bi kabshayni amlaxayni aqranayn wa ala kulli alihi wa asxaabihi altayibin altahirin wa ridallahi alxaalit an jamici almuminin mbokki internet yi suivre seen chaîne Mak TV fu ngeen mën a nekk fi mashaariqi al ardi wa magharibiha ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu xaq di leen baal naa di leen jéggulu ci ajjuma yi paase rekk xat-xatu jamono moo taxoon ñu ab absenté waaye ñoo ngi ciy jéggulu ñépp di ñaanal ñépp ci nemmeeku yi di ñaanal boroom kër gi ak ay collaborateur am na yàlla dolli leen wér yal na yàlla yokk barab bi yal na yàlla def ci ndam xam naa fa tabarakallahu li wolof di wax tàgge boo gisi rekk am na jàppal diw weer wii ñu nekk muy weeru tabaski rawatina bis bi ñu nekk muy bis bu màgg muy bisu àjjuma fa tabarakallahu ci fi ñuy waxanteek yéen ni de passage ñuy nuyu sunu mbokk xujjaaj yi ñoom ña nga ca baytillahi alxaram di def wuquufu arafa lépp luñ ci ñaan yal na ko yàlla nangu li ci yonenti muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci ay ngëneel yal nañ ko jot xam naa ci wuqufu arafa boobu sax tey ci li ñu bëggoon def tuuti leeral ndax tey ji ci àjjuma ñu bari ci ñun dañu woor am na ñoo xam ni boo leen laajee dañuy wax ni comme tey la arafa damay woor ndax lu bis bi ah baax na alhamdulillah waaye arafa liñ ci wara gindi nit ñi mooy boroom xam-xam yi bu dul ñéppit ñu bari dëppoo nañu ni donte ca Makka la Arafa nekk barab bi mais du barab bi lañu jublu ci koor gi mais temps bi te mooy juróom ñeenteelu fan ci weeru tabaski yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee nañu ni kaana yasuumu tis'a dhil hijja wa yawma ashuraa wa thalathata ayaamin min kulli shahr kon dañu ni yonent bi sallallahu alayhi daf daan woor juróom ñeenteelu fan weeru tabaski ak fukkeelu fan ci weeru tamxarit ak ñetti fan yu ne ci weer wune ne ñu naan ko ayaamul biid kon nag bu ñu xoolee ci jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa ci sunu gëstu ñi nga xam ni ñoo nekk tey ci àjjuma nekk fii ci Sénégal ñun tey nekkul ci ñun yow mu arafa ci kàttanu yàlla suba ci samedi mooy sunu yow mu arafa kon tey ci àjjuma ji ñuy waxanteek yéen ñun waa Sénégal yow mu tarwiya lañu ñu toll muy huitième jour ndax bu ñu séentoo weer wi dañu am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñi koy séentu ñu ni gisuñu ñu mottali fanweer kon bu ñu amee benn fan ñaari fan ba tey àjjuma juróom-ñetti fan munul nekk sunu arafa. am ñuy laaj ni waaw comme arafa comme ci benn dëkk rekk lay am ak xadis yi ci rot yépp nekkul Colobane nekkul sàndaga nekkul États-Unis kenn werantewul ni arafa place bi fenn rekk la nekk ci àdduna bi waaye yonent bi sallallahu alayhi wa jàngalewul ni nañu woor bis ba ujjaaj yi di taxaw bisu arafa deni nañu woor bisu arafa bisu arafa nag ñépp d'accord nañu ni mooy juróom ñeenteelu fan ci weeru tabaski kon ku woor tey ci àjjuma pour am ngëneelu woor àjjuma walla it nga ni waa Màkka dañoo woor ma woor nga synchroniser yal na la yàlla nangul waaye ci jàngale yonent Muhammad sallallahu alayhi wa suba ku bëgg am ngëneelu arafa te nga nekk Sénégal te nga doyloo woon ñu doon seentu weer yi mooy samedi mooy sa arafa bët set boo xëyee muy dimanche muy sa fukkeelu fan mooy sa bisu renti kon ñi jàpp ni tamit ni tey jii woor nañu arafa ndax màkka est-ce que ñoom suba samdi dinañu tabaski ñu bëgg la wax ni rek waaw kon tabaski ñetti fan la kon bu ñu tëbaskiwul samedi mën nañu tëbaski dimaas waa mais même bu ñu la waxee ñetti fan la kay dafa fekk ni première fan bi danga amul bu ñu la waxee ñetti fan ñaareelu fan bi dafa fekk amul kon balaa ñu lay tuddal ñetteel day fekk bu njëkk bi amuloo ñaareel bi amul nga dem ba ci ñetteel bi noonu moom moo gën ñu toftale ko bu ñu delloo ci Cheikh Khalil ci téereem bu siiw boobu noonu ñun ñëpp jàng nañ ni tamit bi muy jàngale ci arafa ak anshura def ni zaman bi lañ ci jublu te mooy temps bi bu dee arafa al yowmu bisu juróom-ñeenteel ci tabaski bu dee anshura mooy bisu fukkeel ci weeru tam xarit bu ñu delluwaatee tamit tuuti ñi jàngoon xadiisu kurayb ca diggante Muawi ak Abdullah ibnu Abbas te que ñu yónni ca Cham ñoom ñu gis weer wi bisu àjjuma ci guddi mu dellusi Medina fekk leen ñuy woor ba ñu demee ba ca cëppaandaw ga bi ñu leen laaje ñu ni ñoom de àjjuma lañu ko gisoon waaye ñoom waa Medina samedi lañ ko gis bi ñu ko laajee nan la Muawiya def mu ni dafa woor soxna si wax Abdullah ibn Abbas lu tax doo doyloo wooruk Muawiya mu ni ko ñun ak ñoom bokkuñu loolu tamit bu ñu réviser leçon boobu rek war nañu mën a àtte bu ñu tegee sunu jàngale ci sunna yonente muhammad sallallahu alayhi wa ndax dafa wax ni al fitru yawma tuftiruun wal adha yawma tudaxuun yonente sallallahu alayhi wa sallam nee kori seen feetu kori mooy bis bi ngeen jàpp ni mooy korite te mooy am nañu juróom ñeenti fan yoo xam ni ñaar fukk moo ko jiitu ñu séentu bu ñu gisee bët set dañuy kori bu ñu gisul ñu mottali fanweer bu ñu xëyee ñu kori bisu tabaski gis nañu weer wi ci ñaar fukki fan ak juróom ñeent kon bu ñu xëyee dañuy am benn fan gisuñu ko ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent dañuy mottali fanweer bu ñu xëyee nag ñu wàññi yonent bi neena ngeen wàññi benn fan ñaari fan juróom-ñeenteelu fan mooy arafa mooy bis bi ñu war a woor fukkeelu fan bi bu ñu xëyee mooy bisu tabaski kon donk woor arafa depandrul ci màkka moo njëkk a woor wala moo mujje woor problème bii nag defe naa ni daaw daaw jéeg ci corona bi am na lu bari lu mu lijjanti ndax màkka bi ni mu demee mosoon nañ fi wax ni bu ñu demee ba yàlla nattuñu ñu toog benn année ñu ni aj amul su boobaa kon nan la ñuy lijjanti arifa bi kon nekkul lu garaaw nekkul lu compliqué kenn ku nekk nag mooy def lu dal xelam waaye lu dal xel nag am na lu ko gën mooy lu daj xel te mu gën a wér ñun nag li ñu gëm te mu wér ci ñun mooy arafa bisu juróom ñeenteelu fan lay nekk ci weeru tabaski bisu tabaski mooy fukkeelu fan wallahu taala ala wa alam bu ñu jógee foofu rek ñu bàyyantiwaat xel ci tabaski ñi amagul xar yann yàlla jàppandal leen ñi am ba pare tamit bu fekkee ni ibtigaan li wajhillaahi moo taxoon ñu def ko kon bu ñu rendee lekk saraxe denc am nañu tabaski bu dee nag dañ ko def ngir tiitaru wala pour puukarewu wala pour ngistal su booba xar mi lu mu rëy rëy rëy yàpp rekk nga ci am ndax yàlla nee na duma lekk yàpp duma naan deret waaye li may xaar ci yéen at taqwa minkum kon na ki jënd xaru cinq cent mille te teg ko ci teguwaay bu ko kenn wax mënoon nga jënd xaru cent mille jënd yeneen ñett saraxe ko moom moo xam fi yàlla jaar ak moom ak li ko yàlla jaral ki amul xar tamit bu mu forcé ndax après tabaski facture yaa ngi fi jàngu xale yaa ngi fi fay location mi ngi fi dem nañu ba wax ni koo xam ni wóor na ko ni amul fiiw ay weer ci kanam te da ko nar sonal kooku jërul muy jël ay risk yonenti muhammad sallallahu alayhi wa ba mu rendee rendeel ñu kenn ko amul yóbbaale na la ah ñu bañ a duggaat tamit ci détaayu kër gu ne famille bi yépp benn xar lañu war a rendi déedéet ku manta ngay mu kallaf te sunna la yonent bi jaral la jàngale alquran jaral la rendil nga bañ a rendi pour sa jabar bañ a rendi pour say doom su ko defee tamit ci wàllu rendi bi yonente muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal nañ la ñuy rendee te mooy nañu fexe ba daas paaka bi mu ñaw nañu tër xar bi féetale ko penku wax bismillah allahu akbar soo mënee yeneen ñaan ci topp nga wax nga gaawal sa loxo bañ teggi loxo bi ci paaka bi mu gaaw ni ñuy def tamit léeg-léeg ñu bàyyi ci xel dajale ay xar yu bari jël paaka ñuy gis di jooy